maa ngi leen di fay. tey euh, ñu gis euh, yéen a ngi préparé li nga xamante ne moom moo di euh, événement bi nga xamante ne moom moo di foire des femmes leaders ñu gis tey nga teew ci préparation yi ñu bëggoon xam exactement ndax nga koy préparé. waaw maa ngi leen di nuyu di am contentement ci teew fi tey maa ngi tudd Khady Touré styliste couturière basé wu Sacré-Cœur 3.

chapeau dàll lépp luy nekk ci wàllum aar dama koy def. bu bés ba la ngeen fas yéene indi. yëpp laa seen bopp. góor yi am. Mhm. jigéen am xale yi am. Ah. ñëpp ay am incha allah. yaa wax loolu maa ko ñu dem ci actualité mi nga xam ne moom moo di politique gis ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko boole ne ci liste bi awa mu nekk handicapé mu mel ni handicapé yi dañoo am doole ci nga xam ne ci réew mi tey loolu naka ko jàngatee. waaw loolu dañ koy rafetlu parce que lu ñu yàgg di xaar la lu ñu yàgg bëggoon la euh, gis personne vivant avec un handicap ñu boole ko ci société bi rawatina ñu ñëw boole ko ci gouvernement bi mu war a ñëw plaider ñu loolu tamit daf dañ ciy kontaan bu baax a baax bu defee suñu jafe-jafe yëpp euh, dina wàññeeku su mënta jeex carrément mais dina wàññeeku ñu jox ñu suñu place ñu tamit macha allah mhm. si sa en tant que handicap am na si handicap yi nga xamante ni ay complexe lañ am na si handicapé yi nga xamante ne bii maanaam liggéeyuñu luñ def lu dul wër di tàllaat loxo te alors am nañ am nañ ay moyens yi nga xam ne war a nga yor machine di ñaw di exposé di def li nga xamante bii tey moom moo di ay jaay ban conseil ngay jox handicapé yi waaw mais xam nga bu fekkee côté ñuy di di yorwaan du seen du seen coobare bu ñu amoon choix du ñu nekk di di yorwaan donc loolu lépp question de kii la rek à bas âge day nekk peut-être am ñoo xam ne leen koy yaree ñu màggaale kon ñeen tamit moyens yi nañ dul am pour liggéey mais ku sañoon ku nekk doo tàllal loxo donc dañ leen di gën a jàppale rek pour ñoom tamit ñu mën a bokk société bi hmm. ban mooy ban ban ban message nga leen di jàllale sa message c'est très important waaw ñu góor góorgóorlu rek ñoom tamit jéem a xool ci lu ñu jàpp si école de formation yi ñu ngi fi pour les handicapés uti lu ñu jàpp parce que nekkul da nga nekk euh, handicapé rek da nga war a toog yaafuus na ñu gën a góor rek gëm suñu bopp te xam ñun tamit ci lañu bokk. am na naka ah, ngeen a pas de différence handicapé c' est pas un maladie tamit xam nga du feebar. donc lii lépp ci bopp lay nekk rek je vis avec. non par rapport ak yenn liggéey yi yenn liggéey yi nga xamante ne tey a def parce problème ci loolu waaw loolu dañ ciy kontaan dañ ciy kontaan d'autant plus mu nekk jigéen ñu boole ko ci ci assemblée nationale nag ko ci boole kooku aussi dina mën a gën a xeexal jigéenu handicapé yi donc loolu dañ ciy kontaan bu baax a baax c'est à féliciter di ko ñaan mu gën a gën ñu ci boole. Awasek waa ñu ñoo bokk association. dañoo bokk je la connais pas personnellement mais c'est pas facile, une association yi comme ci Monafo euh, kii bi Pastef bi c'est la bokk voilà. bien sûr am nañ ci yaakaar te dina c'est bon merci hein. merci beaucoup. waa ziar loolu am na solo euh, bi incha allah vendredi di huit day day day tëj mais jeudi incha allah la ñuy def installation yi ba set bi neuf heures lay tëjji ba neuf heures maanaam neuf heures ba ci biir foire bi nag ñun dañu ne li ëpp solo mooy visiteur mooy les partenaires.

waaw maa ngi nuyu bu baax yaay baax ñu jàmbaar bi am macha fekk ñu ngi xool nga jëlee jigéen kanam ñu ngi suñu taxaay bi dem yëpp Tafa dama am ñaari question yu ma la ko laaj ku ne xam ne ni war a jëlee ay jigéen dana am loo xamante ni mooy bu nekk ci biir bu wane ne bu man maa gën a defar ba baax loolu yaakaar naa ne ñoom teew ñëpp sax dañuy joxe ku nekk ci maa def lii maa gën a baax maa gën a baax est ce que loolu nga préparé nga benn prix ko ci ci deux jours yu baax yi nga xool bu dee deux femmes yi nga xam ne ñoo gën a euh, fës nekk ay exposant pour maanaam nekkal leen loolu tamit dina nekk surtout dans trois Euh, deuxième question bi mooy euh, yaa ngi préparé euh, comme bi ko defoon l'année dernière muy soirée boo xam ne bii soirée de gala ne da ngay tànn ñi nga xam ñoo gën a fës ci jigéen ay leader ay ay leadership comme ne dox ay raaya nga defoon lu daaw nekk réussite daaw ce que ren innovation yi lan nga dafa am changement wala ni nga defoon daaw si loolu la ñu wax dëgg yàlla merci beaucoup Mame Ndao waaw man comme li may wax rek ñun jigéen ñëpp lañ yemal ñoom yaakaar naa ni man tey dama naan su may séddal ñoom ñëpp laay jox ma yoree bu bëri nag ma jox leen ñoom ku nekk parce que ñoom ay jàmbaar te comme ay jàmbaar nañ

voilà ndax jiw incha allah lu euh, ko sëy comme mooy def enrôlement yi incha allah moom dinañ ko fi sargal dinañ ko fi teral ci jour bi incha allah waaw moom parce que moom acteur culturel la boo xam ne dafa a jàppale suuf si nuyu bi. waa dîner gala bi moom suñu toll nii dama ci def kon pour l'instant parce que comme damaa jëm ci foire bi te damaa am loo xam mhm. dama ko digle ak ñi man nitu defi laa yaakaar naa ne incha allah su ma paree le huit le neuf ba le dix su boobaa nag dinaa wàccee nag incha allah mooy mois de décembre en tout cas jàpp nañu date bi ba artiste yi war a tëgg tamit disponible na def nañu lépp mais dañuy xaar ba bi rek ñu doolay wàccee date boobu incha allah surtout bu ñu ko te foire bi ñu def ko ñoom waaw.

mooy ministre de la femme wax dëgg yàlla yónnee jot na ko te incha allah am nañ yaakaar ne dina ñëw seet si jigéen ñi soobee yàlla incha allah ay la góor aussi envoyé nañ ko lettre te ñu ngi ciy def ay jéego comme ñoom ñu ci mais incha allah loolu jour am nañ ne même bu ñu teewul dinañ ñëw waaw. eh, sean gina ya kan ko don kala da xam ñu doon daal daanaka dina topp léegi si la yow actuellement ñu ngi si moment campagne donc moment campagne xam ni politicien politicien au Sénégal képp ku gis xooloo daf ci bëri indi wàllu politique parce que yéen a ngi bàyyi xel bu baax ndax li nga xam ne tey moment dara taase carrément si wàllu politique parce que politique defe naa ni euh, ginnaaw bi nga dajalee famille yooyu defe naa ni muy opposition bi si pouvoir bi si nekk am na si wàll est-ce que prévoir na bu baax a baax surtout moment élection yi euh, lépp loo xam ne dafay rafet carrément politique si li nga xamante ne mooy soit des familles yooyu est-ce que dañ koy bàyyi xam baax merci beaucoup. Hmm? xaaral ma def lii rek waaw maa dellu si waat man la madame Awa Cissokho di actrice de développement di yëngu dans l'artisanat dans la formation ak yu bëri nekk lañ trésorière de l'union nationale des artisans du Sénégal et de la diaspora Je voudrais vous poser ci question euh, parce que c'est vrai que moment politique est moment parce que le Sénégal pour nous xam 2023 2024 du c'est une année spéciale une année anormale du plan politique parce que li fi xew dans ci politique yëpp du lu ñu préparé ce ñëw rek dal suñu kaw yàlla def na ñun bi préparer, préparé suñu événement bi ça fait des mois comme niñ leen ko waxee boobu nous woon dans dinañ toll ci campagne moment bi. donc moment politique bi moo ñu rattrapé nous on n'a pas initié ce programme pour des vues politiques wax dëgg nous sommes des acteurs de développement peut-être que la politique a un rôle bu jouer parce que les politiques ñom ñoo war premier soutien mais nous avons prévu ce programme il y a des mois maintenant histoire de la campagne législative bi mom comme nous sommes dans une année anormale où les choses se sont passées comme nous, l'avons vu, euh, des surprises que nous vivons et que nous acceptons. Mais ça n'empêche pas que nous, nous déroulons nos programmes de développement. Voilà, donc euh, comme nous, nous, questions, question, nous poser ça aussi. Euh, côté, administration, côté étatique, bon, l'une qui bug, mais on espère que cette fois-ci, il y aura un changement. Parce que déjà, les audiences yi nga déposé un peu partout nous avons des retours ce qui était quasiment impossible dans l'autre régime du fi on avait beaucoup euh, on avait lancé beaucoup de lettres mais jamais on n'a eu de réponse donc cette fois-ci vous avez une réponse vraiment ça va dans le sens de nous encourager madame la ministre madame euh, elle, a en charge le ministère de la Femme et des Solidarités. Donc on espère beaucoup que dina participe à ci la édition bi passée elle était aussi parmi les marraines Il moment y avait beaucoup de difficultés comme ni ñu campagne on n'avait pas vu sa présence mais cette fois-ci je sais que dina ñëw dina et on aura des surprises loolu le moment, allah on vous le promet merci beaucoup. y a am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew wala manke man yu wala euh, sax jafe-jafe gawa euh, gaaw sen gam kattan nak dafa ñew pour saafara leen bepp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci sen néegu sey ku bëgg ci gam kattan bobu da ngay ci 77 490 09 20 ak sen gam kattan. jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew